te cérémonie bi dafa am ñaari pàcc benn pàcc ñuy delloo njukkal ñi nga xam ni dañ leen ràññee ci seen taxawaay ak seen i liggéey ci turu président Macky Sall mu sant ma tey ci ñi nga xam ne ci ministère de l'urbanisme dañ doon liggéey ñu delloo leen njukkal delloo njukkal boobu dafa am ñaari signification première signification ñoom seen liggéey bi ñu def ba seen ñëpp reconnaître liggéey bi ñu def ci seen service ba defal leen médaille yi man mii ministre de li ngeen am nii mosuma ko am sama àddina te maa ngi ciy xeex guddeeg bëccëg pour ñu tabal ma lii ñu leen di tabal loolu nag dafa am valeur ci yéen mais dafa am valeur aussi ci xale yu nga xam ni ñu ngi commencé seen carrière ñu xam ne àddina du utum koppar rek ak utum daraja am na ñu bëri fii liggéey bi ñuy def. ñuy wax ni ablaay Sow ou bien Victorine Ndeye ou bien Abdoulaye Gueye ou de cabinet ou bien DG yi ñi ko def ñu ngi ci suuf ñu ko def guddeeg bëccëg ñu ngi sacrifié wu te liñ ci am néew na ci alal waaye alal bi gën a rëy ci àddina mooy réew mi ñëpp d'accord ni am nga liggéey ba ñu defal la reconnaissance bu toll nii loolu message boobu nag moo ëpp solo mbaxte àddina lu weesu weesu na rek dañ ciy jàngat pour ëllëg moo tax ma bëgg xale yu nga xam ne ñu ngi commencé seen carrière jàngat yi ñii xalaat ni bés bii dina ñëw bés bu nga xam ne yaa ngi war a dem retraite nga def sa liggéey te nga génn ci ak gàcce nga du ñu may confiance nag ñu caaxaane ko fi ñu taxaw noonu nag nañ fa taxaw xam ni président Macky Sall daf ñoo yaakaar ñun ñëpp yaakaarul Victor yi ndey rek ak man mii ak ñim ñoomee décret ñun ñëpp la yaakaar ci liggéey bi ñu sàmmloo ñu war cee góor góorgóorlu ba ëllëg buñ ko koy delloo comme ñii tey am seen médaille yi ñu am reconnaissance am mais aussi ñu am reconnaissance de la nation.